waxee yàlla may leen kàttan ñun neen nun suñu xel yi dafa sëgg ba tey ñu nangu nañu waaye ñoom ñoo ñu war a gën a mën a yomb muñal nangul ñu ndax bu fekkee li may wax toujours nee naa sëy partenariat la partenariat boo xam ne ñaar nit ñi ñoo bokk intérêt bénéfice bi ci judd ñoo ko bokk yàlla daf ko def ba doom ji da ci am wàll ki yaay ji am ci wàll ngeen bokk ko mu nekk loo xam ne mënoo koo dagg sànni daggal ko wàllam génne moom te munul génne sa wàll dëgg la kon dañu war a respecter loolu xam ne yàlla li mu def loolu la partenariat bi partenariat boobu nag ñu bokk intérêt Adja Dikene ma doo def lu may merloo dama dañuy waxtaan boo ma defee lu ma il faut pas lu ñu waruñu dagg dialogue bi. communication communication bi warta dagg. communica àddina bi communication la. ñëppay juum dëgg la. sa jabar juumee. Hmm. naka. Ah, soxna si waaw ndax ku nekk am nga moo boo xam ne yaakaar naa ci sëy ajaar yi war nga booy neexalee nag soxna si moom it mu am moo boo xam bu neexalee ne ne ñun rek ñoo am ay moo yi leen di neexalee ak ay tur yi leen di neexalee te ñoom dañ ko def alaaji yow yow ban ni ngay neexalee sa soxna alaaji nga ne booy wax. lu waaye di liggéey ëllëg foo a tax. alaaji kon nga ne nga ne nga ne yaayu papa àjjana. oui sama àjjana la. waaw kon nag na góor yëpp roy ah, ay wax yu <laughs> loolu la. donc loolu nga neexal ko. Hmm. ndax Adja dëgg damay wax ne. ni ma bañee ko ma sàllalu. waaw papa Ndiaye lu dafa wax sànq lu am solo. Hmm. ndax dafa ne jëkkër dina xëy dem liggéeyi. Hmm. jabar ji toog ci kër gi. tataa nga ñëw fekk sa kër set di xeeñ lu neex ndax damay joxe exemple pour ñun suñu société ñun sénégalaise. Mhm. ñun dañuy defar lu ba mu baax. Mhm. ndax dañu ci yar. dëgg nga defar ba mu baax. Mhm. defar kër gi ba mu set. togg lu neex. dëgg la fu napp rafetee nga lal. dëgg la fu torchon rafetee nga teg. dëgg la fu kudd gën a baax. dëgg la cuuraay day gudd bu baax dëgg la. nga ñëw ñu tegal la añ. sa ajaan dëgg soxna sa tegal añ bi nga añ sax. mu ne la nijaay jaay wala tur bi mu lay neexalee rek. añ nga doo toll doo añaat. nga ne suur naa. mais yaa dégg foofu jërëjëf. Mhm. jaraw lakk massa coono massa coono am na fa yoon ajaa dégg mhm. tey li ñu naqati. ndax nit ki. làbbali fas. waaw nit ki mën nga koo mën nga koo lu ne ajaa dégg xaalis mën na koo jënd. Mhm. mais xam nga li ñuy wax le don de soi. nit ki jox la boppam. loolu kenn mënu koo jënd. dëgg la jox la xolam. dëgg la kenn mënu koo jënd ju neex. waaw jaraw lakk te wax ju neex rek ay njëg li nag. dëgg la reconnaissance li naan reconnaître nit ki hmm. nit ku nekk ko reconnaître rek la soxla dëgg la loolu rek moom important kon loolu ba tey manqué na fi moo tax manqué na ci suñu sëy te loolu dafay indi violence dëgg la parce que nit ki boo ko te jigéen ñi ci société bi hmm. pour tenk rek xam naa thème bi moom dafa kii te xam naa temps bi du hmm. temps bi du ñu may suñu jigéen ñun jigéen Sénégal dañu joxul parole ci biir sëy dañu joxul kàddu jërëjëf ndax ñun dañuy toog yow da ngay nekk ak sa jëkkër yow sañoo sax mer tu n'as pas droit. waaw moom daal mooy maire. waaw di football boole ak di boom ak di bum. waaw ak di takk. waaw maire di dem di def yu kenn xamul. waaw yow nag yow amuloo benn droit. ñu ne la mais nit nit rek la. Hmm. jigéen dafa am droit maire. dëgg la war a am bu meree kat boo ñëwee dugg si kër ga fekk sa jeeg nag toog nag kanam gi xaw a def na nga ah sama. lu xew. Mhm. tey kat sa kanam gi moom neexu ma. Mhm. loolu rek wàññi na lu ko naqari woon wàññi na ko 75 pour cent. dëgg la am na góor yoo xam ne mënuñu wax du neex. waaye fekk sa jabar mu toog xolam naqari nga ne ko nag foog nga ree. Mhm. foog nga théâtre. foog nga def lii. déedéet duñ ko def noonu sax su ñëwee fekk la sa xol naqari dana ne ah sa xol day naqari te danga danga jot sax ci gis ma. dañuy naan ci faaw. wallaay wallaay donc kooku elle est obligée. bu meree il faut mu dëgg la a wane dama mer. mais sëy yi nag théâtre la. ah gis nga fi mu ne nii Alaaji gis nga violence conjugale yi dafa rey xolu jigéen ñi ba sëyi léegi jigéen ñi tayaat lañ koy def parce que yow da nga dem ba nga xam ne sa xol dafa dee xam nga waxoon naa la fi góor ñi dañ defen ñoom rek a am siddit xam nga baax li ma la hmm. ba di nagam mais allah ji bëri na fi ay jigéen yoo xam ne seen biir néegu say théâtre lañ koy fajee xam nga lu tax parce que cofeel ba góor ga rey na ko ba nga xam ne dañuy obligé su leen ko góor ki soxlaa ñu théâtre théâtre du cofeel bu fa nekkati parce que ni nga xam ne noonu la sallallahu alayhi wa sallam jàngale nga war a naxtaan sa jabar di ko wax wax ju neex xoolal ni mu doon bootee soxnaam di def yu neex ba nga ba jot sa jabar nga xam ne su dee ñëw ci yow jabar ji mbég lay jëwete yow guuru Sénégal fekku leen ci guuru Sénégal daanaka soo sant su fekkente ne ak i ah, góoram soo moytuwul sax ñu violé la ci biir sëy bi pour wan la ne maa moom kon jigéen ñi seen xool ci jëm boppam moo dee te loolu allah ji conséquence ay forme violence la est-ce que xam nga ni ñuy sàkkoo sa jabar si biir néegu sëy sax violence la waaw xam nga daal soxna dégg ni cuuraay bu àndut ak soor cuuraay bu àndut soor bu dee nit ki yu mën naa rentre da ngat ko dugg ko yëgul yow dégg naa la c'est que da nga <laughs> dama ne ni cuuraay ni mu neexe bu àndut ak soor mooy sorti bu dee nit ku yiw mën naa rentre te baat bu du jib ba cuuraay li dugg ko jërëjëf baal doona la wax am neexul noppam neexul. baadoo la. su waxee te jub dëkk. ba noppam ngay kalkin. baadoo la waaw waxam neexul. noppam neexul noppee allah <laughs> nga. dama na ah, <laughs> ah. mm. am jigéen ñu soo xam ne mm, mm. na ma yàlla baal. mënuñu euh, neexal góor. waaw ah, day am nag. du jeex. day am de rëy koy def nag. waaw waaye dafa am jigéen ñoo xam ne ñii. mën nañoo mer sax nga wàcc. waaye palaat bañ lay dij mm. mën na remplacer mer ma dëgg la ndax looto fees fees fees ban la départal ndax di quelqu'un gendarmerie bu la jàpp mba alkaati mm. nga ne ko hé sawar ba feree na mm. mu ne ko nuyul ma sama yaay xañ si ndax amu fa place dëgg la dëgg la laaj boo wàcc ñu taaj la reer nga reer ba regg mu jox la kër daa torso nga ne ko waaw soxna si bii palaat foo ko jëlee merci du nelaw ndax quelqu'un ndékki gis nga mooy fasu naar guru wuy daw nga làbbali mm. mën naa jël première mm. dama ne mokk pooj ak jonge war na góor war jigéen mm. kilifa nag na muy mokke pooj gone du ko arbitre doom du ko gis ndax bu mu amee contact sori courant coupé teg ca ki nga bëgg te sopp ku muy trésor moo xoon ne fii ni la ñaar ñu soppate àllub kaa ñooy seen marché sànd gi fenn du wéet ci ñoom dëgg la la ngeen ñaar arbitre la waaye amateur néew fa. Hmm. nu neex def leen seen guddi neex ba jënd fekk xale yi békk. jërëjëf xam nga alaaji euh, madame Niass dafa am benn vole boo xam ne bëggoon naa ñu wax ko ci forme violence bu terrible mooy ñàkk yëkk xam nga tax ma wax la ñàkk yëkk alaaji am na ay jigéen yoo xam ne ñi ci mbedd bi moo ñoo leen di fàttali seen taar waaye seen dëkk gëj na leen remarqué yàgg na hmm. doo cuuraay. doo defar kër du set doo léttu doo solu ba ñu remarqué la parce que tout simplement dafa ci ay xeetu góor yoo xam ne alaaji benn doome soo ko commencé am ñu ñu ne la magal nga ah non man xale bu tuuti lay wër xale bu ndaw yow su ko defee yow nga nekk ci sa diggu doole te nga xool ta daq ay at xam ne sama jëkkër loo xalaat def naa ko waaye waaye gisu ko safu ko alaaji donc yow indifférence boobu nga xam ne loolu ngay vivre depuis des années forme violence la am na fi ay jigéen yoo xam ne alaaji pour ñoom amul lu ñu munul def suba ba ngoon ay at te seen jëkkër remarqué leen yow da ngay jékki-jékki sa mbedd ma sa ñu ne yow sa létt yi rafet na di ah yow jekk nga di nga ne mais man finalement mais man ñi ci mbedd bi ñooy gis ne jekk naa sa jëkkër day gaaw a ñëw sax nga gaaw a sangu solu def alaaji bu ba neex sa jëkkër yaa xam tiim taat la yaa xam tunique yaa xam blouson yaa xam bu la neex def ko mais gis nga su ñëwee dafay lay romb comme ku romb góor wala boog comme ku romb ngelaw alaaji gis nga violence boobu rey na jigéen ñi cardiaque loo na leen te loolu mu ngi fi du jeex yaay fàttali. waaw xam nga nga jox ko tailleur bu tëlee ñaw. mbubb bu. seeree. Mm. nga jox ko tailleur bu tëlee ñaw sa yaakaar tas. jeex na yaakaar yee tas. <laughs> gis nga gis nga Adja Degene violence boobu nga wax. Mm. mooy violence bi gën a metti ci doomi aadama. indifférence indifférence. parce que xam nga gis nga études yi dañu wane ni. Mm. ay essayé ko ci ay golo. bébé golo. bu ñuy teg doo wax ak moom di ko nàmpal di ko jox mu lekk di ko jox biberon di ko jox mu lekk te doo ko faale doo wax sax hmm. ñu boole leen ak ay ay nunus yu ay ay ay nurse yu yu muuma hmm. yu dul communiquer ak ñoom hmm. dañuy dee ah, dégg dañuy dee wuute ko dañuy dee ndax nit yëg ay garabam nit yëg a koy dundal kay nit yëg garab sax boo koy arrosé chaque jour te xoromaloo garab gi naan ko ah xob bi de bees na ah sama garab gi de ma ngay meññ garab ga day dee. xol yëpp dee nañ na waxatuma ak nit. soxna yaay fat xol yëpp dee nañ. indifférence gis nga jigéen ñi soo jëlee xaaj leen. sur dix jigéen laa la wax huit yi indifférence lu ñuy dund mhm. dafa jam ñenn ñoo xam ne bañ nañ ko ba nga xam ne balaa ñuy mën a dund moo tax ñuy yàgg ci salon de coiffure xamuloo mhm. xamuloo da ngay gis jigéen boo xam ne day dem ci institut beauté wala léttukaay wala dara yàgg fa fekk ne foofu sax lay sentir seetu yu ko wër wala dara nekk kii femme la parce que sa jëkkër gisatu la gisatu la parce que dafa góor yu bëri yoo xam ne allah ji pour ñoom nee naa la defal dina dinañ toppatoo ba nga accouché amal leen benn doom rek fini fini pour ñoom suñu waxee ñu ne ah yow meer nga ba yow looy wax ni meer nga wala ngay dugg waxoon naa la koo xam ne ne jëkk ji su dee dugg ci néeg bi nii lay def nii dugg dugg dugg dugg dugg génne la sa néeg bi dafa xasaw day xeeñ liir mais gis nga forme violence yëpp kenn mënu koo wax. kenn mënu koo wax da ngay wax da ngay da ngay daje da ngay gis baadoola yow. baadoola yi lépp lépp xam nga dégg euh, li gën a am solo ci àddina. Hmm. mooy sol mbu nëb. Hmm. di gàkkal ko sañse Mm-hmm. liir la waral ñu ni liir ba mm-hmm. ndey ji am na jëf ci waaye bàyyi baa ko sabab jërëjëf kenn du xas sa bopp te doom deret la mm-hmm. dama ni dafa am jigéen góor ñoo xëy na ma yàlla ba ak i góoram du ñu faaris waaye boo dee faaris da war a am lingeer boo amee lingeer def ko noobal am na goo xaj mbub mu ñu sol bu dul ñaar ñu ba ko bu ñu sañsee seen soxna sañse te ñàkk fu la mënta paase ñun xool li jiw di sànce. Mm. xool ni jabaram ji mel. Mm. personnalité boo jaay ngelaw la. Mm. boo fóotu nu képp du ko téye. amatoo personalité dama la ne sëyu mag njëkk ñi dañ daan takk ba mu dëgër. topp cay sàmm nag. musuñu wax baat bu ñaaw. baaraam képp njaboot gi daana toog ñu tàllal ko. soxna sa jëli. nga wax bu am solo sàng. doom. dañuy du arbitre. waaye mën naa doon amateur di seetaan. dëgg la ngir ëllëg lu mu gis yaakaar ni loolaa mën a wéy. Mm. wax naa la bu ngeen dee kaf sax ba doom ni tël dëxañ leen ba mu paase ndax <laughs>